bismillahi wa ala millati rasulu man hajil xadim ginnaaw bi nu ziare sunu kilifa gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa noo ngi jéggulu tey jéggulul sama rakk ji ndax xol ba ni la mel weex tàll xalaa kulli xaalin nag ndox dee ball ndox mën na bal ba noppi nuroog meew waaye mën naa ball itam te du nuroog meew du jéggulu xalifa bi sang bi faal ku tedd kee def sang Cheikh Ibra Fall moo ku mu meññi nga doonam sang loolu leer na nañ waaw di ngeen di sang kon buy kàddu yu jibee yu ngeen rafetluwul may jéggulul ñépp ndax mbubb dañu koy sol mbubbum terang mi ñu ko tedd ki solal mbàkkeeg bu soog faal ñépp la ko solal solal ko bépp sant bu ne ci réew mi ba solaaleel ko tubaab yi nekkul ci réew mi kon nag jéggulu ak jéggale rek moo fi nekk noo ngi leen di jéggulu ndax lii mooy li nekk adduna moo baaxoo rek tëradi waaye xol yi set na wicc buñ ko weddi wasalaamu ala man ittaba'a